production présente. macha allah monsieur le ministre ki nga xam ni bi mu dugg see stade bépp dana jug taxaw xam naa ne ci biir waxtaan bi dana wax lan mooy secret parce que yenn yi moom tukkuloor dañuy faral wax naan neddo ko bandum mais tey xam naa ne nag dëgg-dëgg nag neddo ko bandum papa mu bàyyi la nga nuyoog mbokk Gaston production yi maa ngi lay ziar baax. waaw maa ngi euh, sant ñëpp euh, di gërëm ñépp waaye ku santul. sabab doo sant yàlla nañu fàttaliku arène nationale bi ñu toog yàgg nañ ko bëgg ci réew mi ci nguuru président de la république son excellence Macky Sall si la yàlla may Sénégal arène nationale bu mucc ay bii donc damay tàmbali ci sant président de la république ci lu mu defal Sénégal lu mu defal làmb gi lu mu defal culture bi lu mu defal sport bi li mu defal la jeunesse loolu moo tax foofu laa bëgg tàmbali balaa may ñëw ci événement bi événement bi lan la ñoo ngi ñëw fii tey pour def li nga xam ne moom mooy lutte traditionnelle di yeesal sunu aada ak sunu cosaan ki nga xam ne nag moom moo am initiative bi mooy sunu doom di Ablaye Ali Malal Diallo di doom ki nga xam ne moom mooy euh, Malal. Diallo euh, ki nga xam ne moom mooy promoteur u euh, euh, rajo bi nga xam ne moom la ñu tuddee rajo Fulbe International ñu sant ko ginnaaw bu mu jëlee bës bi tuddee ñu ko muy mbégte bu rëy parce que ngoon gii nekk na ngoon boo xam ne bind nañ ko ci histoire Sénégal l'histoire retiendra cette date et l'histoire retiendra que c'est un jeune bi nga xam ne moom moo dajale séeréer bi dajale joolaa bi dajale alpulaar bi dajale lébu bi dajale xeet yëpp pour que ñu dundalaat sunu aada ñu dundalaat sunu cosaan loolu nag nekk lu am solo moo tax dama kontaan bu baax a baax a baax fi may toog nii maa ngi gis yaakaar naa ni jaraaf yu sundoo yi moom mooy ñëw mooy dugg si loolu nag dafa si gën a bëggal parce que man maa ngi yeewoo ci commune bi nga xam ne moom la ñu tuddee commune de Mbao te xam ku wax commune de Mbao wax village de Mbao ak Petit Mbao foo xam ne ay lébu ñoo fa dëkk tey jii xale bi lu mu def moom sax xamu ko. mu am solo. moom sax xamu ko parce que tey dafa jël alpulaar bi jël joolaa bi jël lébu bi jël euh, euh, euh, séeréer bi jël Sénégal boole leen. ñun nag loolu la ñu xam loolu nga xam ne mooy Sénégal kenn du ko xar benn bopp la ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay je profite nag ci occasion bi nga xam ne tey jii lañu ñu ubbi campagne électorale pour élection yi di lancer un appel à tous les Sénégalais ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñëpp ñoo bokk baay Sénégal kenn mënuñu ko defaral lu dul ñun waruñu ko yàq dañ ko war a yàqanal moo tax tey jii xale bi jox na exemple boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci roy lu am solo ñun ñëpp dañu war a joxante loxo maa ngi nag euh, félicité euh, Gaston bu baax a baax koo xam ne aussi ci wàllu euh, làmb Euh, amul lu mu war a prouver waat na lépp ci làmb jox na lépp làmb jox na lépp sport moom tamit ñu ko ñaanal yàlla yàlla fayal ko boppam. kontaan ci yow ma bàyyi la nga wax benn moo ci alpulaar rek. eeyi banndiraaɓe euh, ko weltaare weltaare mawnde euh, wonande oɗo kikiiɗe baɗɗo fayida ko adi fof eɗen jetta allah eɗen mbeltanii so excellence monsieur le président de la république par ce que nokku mo jooɗiɗen o wiyete ko arène national sénégal naaɓe ɓooyi wiide enen jiiɗi arène national eɗen jetta allah koye yontande président de la république oɗo arène national daña e moƴƴere makko o itti oɗo arène national o fayi ɗum e, e juuɗe jeunesse o fayi ɗum e juuɗe e, e sportif en hannde ko wiyete euh, lamba ko haalpulaare mbiyata ko lamba wolof yi di wax lamb haalpulaar bi wax lamba maanaam euh, euh, li ko nganndanɗaa hoore ma yimɓe ne cippira sippiro koye culture haalpulaar jeyaa koye culture séeréer jeyaa koye culture wolof jeyaa koye kilif joola culture joolaji ha donc culture aji men enen pop goto foof ene jogui eh, eh, to banggue coftal ɓalli eh, ko wiyete sippiro ko hande noon oɗo suka o rendini lebuoji o rendini joolaji o rendini seerraɓe o rendini haalpular en ngar coftina ɓalli mumen ciftina yimɓeɓe culture hanki gonnoɗo hanki e heccanki o omon ɗo ha hannde e ɗo won ha amin ñagonomo allah nde allah renata mo wassalamu aleykum wa